3 FPT, un levier pour la performance, destiné à toutes formation yi ni mu demee pour ma revenir ci tuuti en fait man maay président association bi ba pare nekk initiateur bi aussi. juddoo Fass màggee parcelle nekk doomu Bawol bëgg làmb ci laan wut licence promoteur commencé tëgg ay làmb ma dem ba benn moment gis ni y' a beaucoup de lutteurs au Sénégal y' a et chaque écurie bu fekkee ni cent lutteurs ñoo ci nekk mën nañ ni at bi dix wala vingt ñoo ci bëri ñi si des ñëpp dañuy topp mbër bi noonu ci laa leen ne nag nit dafay am métier léegi dinañu ñëw ànd ak yéen jéem a xool nu leen di jàppale ba former leen jéem a xool nu leen insérer noonu ci la ñu dem 3FPT waxtaan ceeg ñoom ne leen suñu mbébét mooy fépp fu mbër nekk Sénégal rek ñu formé ko jàppale ko mu am xëy. sant yàlla parce que dañ ne ministre de la formation professionnelle de l' emploi de l' insertion et de l' apprentissage nii ñu abisey accompagner financé ñu ba ñu am formation noonu la ñu signé convention ak waa direction de l' emploi tey bëgg nañu bépp mbër bu ñu former rek ñoom ñu jàppale ñu ci insertion bi. on est les plus jeunes retraités bi Sénégal 45 ans 48 ans tu es retraité mais après après la lutte c'est quoi après la lutte c'est pas nga nga nekk benn benn nit ku fauché. donc formation bi moom euh, je pense que yokkute la déjà suñu nee formation rek mooy euh, ñu ngi lay tàggat te defe naa tàggat moom ku la koy def rek bëgg na nga am njariñ ëllëg te ay ndaw lañu ñu ay sportif di yëngu ci làmb donc Bamba Mbuub am initiative bu am solo. jóge bitim réew xelam jox ko mu ne pourquoi pa naa def xool benn touche bi nga xam ne xëy na bàyyiwuñu leen xal wala yaakaar nañu ni waruñu mën a bokk ci société bi dañu war a yem si bëre rek yem si mu ne noo war nañ leen former pour autre chose nga xam ne même bu seen làmb doxul dinañ mën a dundal seen réew dinañ mën a dundal seen bopp ak seen njaboot ci benn formation donc kon formation boobu jëlee nañ ci xam-xam jëlee nañ ci luñ ci xamul woon xamee nañ ci àdduna yar nañu ci comme c' était l' armée quoi parce que tamit formation pour sécuriser une personne et ses biens je pense que dafa laaj benn rigueur laaj na aussi benn taxawaay et je pense que ni euh, waa <clears throat> waa Fit Protection International yi nga xam ne ñooñu doon formé vraiment am na lu bëri lu ñu jàngal ci yar ci dal ak ci moment bu nekk nan nga war a réagir. ci ngaalaama à 3 FPT parce que dañu xool fu gars yi gisul. parce que imagine toi làmb ni mu amee effort yi ni ko jeunes yi bëggee mais nga dem ci écurie mu am 100 ñaar ñoo ciy tekki mais ñeneen ñi dañoo am lu ñu leen war a def ñeneen ñi dafa am benn projet bu ñu leen war a tegal pour ñu mën a réconforté réconverti wu donc kon association FILS dafa ñëw fi mu fi mu baaxee trois fpt dafa dugal loxoom fi mu ko war a dugal ndax jeunes yooyu tey waruñu leen bàyyi ñuy nekk ay leneen waruñu leen bàyyi ñuy jël gaal gi di fuir leur destin waruñu leen bàyyi ñuy rey seen bopp ci Méditerranée bi waruñu leen bàyyi aussi ñuy dugg ci drogue wala dara dañ leen a war a